Gore, c'est un principe pédagogique. On ne nous pose pas en nous opposant. Pour faire qu'on nous opposer ça. Ce qu'il faut Sénégal, moi, c'est le président de la République. Mon ce qu'il faut depuis le parti il faut qu'on accepte d'être ensemble suis ngi ma délégation Je suis duma kenn rek laa ciy jël mooy ki ma feggoo fii mooy Abdoulaye Sow Sonatel Ablaye c'est un grand honneur c'est un grand plaisir d'être avec toi et malika suñu gisee yi mën a dendeeg moom dañu wax ni lii rek moo jaadu kon Ablaye nañu nekk ensemble on a beaucoup de défis à relever à Malika suñu àndee day sotti góor a xujja ñi ma fu lim lim mais je damay entrer dans le vif du sujet mag ñi dañ ni su fekkee da ngay jàmbat ñetti jàmbat juróomi fait xamoo sa feebar boo naan lii ak lii ak lii day metti xamoo jot man benn soxla laa am yéen ngi wax ay bassin yéen a ngi wax ay route mais yooyu kala ni naam suñu paree on va lister les besoins mais fii mu nekk li Macky Sall di séentu ci ñun le président de la République mooy ñu ànd Victor ni ko président victoire baa ngi nii. lu yomb mais il faut pas dormir sur ses lauriers xam nga lu tax lu tax du yomb moo di ñun ñëpp xam na ni ak le maire de Malika dañ doon xëccoo les urnes à montagne Ce qui jëlee paie qui jël deux mais bu fekkee da nga am un esprit arithmétique rek da nga naan aajowutul ah, may sonn ñii dañuy gagner. te ku daaguñu raw la Pape nañu sokali soqaliwaat nit ñi ni len bu kenn ni ah xam de xam nañ dañuy gagner pa ak Talla suñu àndee dañuy gagner duma ma voté ji loolu musiba la na ñepp ñeu voté ci plus la victoire est écrasante plus nous avons réclamé quelque chose de Macky Sall j'ai très peur j'ai très peur parce que man un un problème 46e département Macky Sall Moko il est impensable qu'on le perde il est impensable yalla nee so soo dara da ngay dox jëm ci on veut une victoire dox jëm si modi qu'on prépare toutes les armes États-Unis Amérique ñu gën ëpp ñu xel mais su guerre amé fo wara a ben bazooka ñu andi fa B 52 mu woor lañ ni mom fofu day mokk. dama bëgg ñu lu bu baaxa baax le maire le député maire Moustapha Mbeng nous avons ko le département bi sax je parce que je suis initié ñun duñu kenn lenn lenn duñ ko soxoré dama bëgg képp ko xamni bu taala ne ci nga ni yar xam nga ci bu pap ko ci nga ni yar nga ci bu goor a ci nga wax lool nga japp ci bu kenn kenn on a

ci kaw te li gën a tax ma maire aujourd'hui on a de nouveaux défis Yo xam des des des des jeunes inexpérimentés on met inexpertes mënuñoo yor Malika ma bëgg ñu jàppoo Pape man bañu béré daan nga ma bu yàgg ba Macky ak goor daan ngeen ma bu yàgg c'est pour des raisons de protocole rek je wax mais man depuis que je suis dem len suis ak maire and ak man man mai man man man man soldat man sen soldat légui man mai sen soldat légui parce que Gora il est docteur bi muy defi doctorat ñoo yow Macky Sall ba ngay and ak mom, bobu xawmako xamuma la ensemble ba ngeen jot pouvoir bi mun la malgré tout dem leen ànd ak maire ngeen nangu ko mais ay gërmi ngeen te man nag ku ma lebal ker ma fay la guddi ku ma lebal ker ma fay la guddi li en dernier mot li ma mën a wax moo di nañu sagal Macky Sall gagné largement dans le département loolu rek mooy suñu excuse ci ci wetam mënuñoo def leneen leneen leneen lu dul fexe mu gagné département bi il peut même perdre d' autres départements mais bu bees bi nga xam ne yaa ko juddul yaa ko wutal tour mënuloo ko perdre mm, inchallah et ça ne dépend que de notre volonté de notre pugnacité maa ngi ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp moom père Ngagne mon père Ngagne mon père gagne. Balenko leen ko luy nuroog sax déplace le déplacer. c'est dans sa nature mais on le comprend on encaisse man dinaa wax de me dama bëgg pouces, tout ce qui est négatif ñu positif. ko la presse maa ngi sant ñëpp di sant la presse di sant góor ñi di sant jigéen ñi xam dal ni daal ñii ni ma leen ngeen taxaw bu fekkee on a la même détermination jusqu'au 23 on va vaincre la main haute. Mangi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum